dama lay yenu jalax si biir géew bi. waaye oh que sama combat moom taxawal ko waay. kan la ci. Babacar combat bi ba boobu. yow sax bi bëggoo bi ah waaw bëggoo bi waay ah. waaye sant rek mais jaar nañu ko. sant yaay ñu bu baax a baax. mais ñu gis nga indi Pakala Casamance mu nekk xale boo xam ne naan la. dëgg la gëj nga ci géew mais tey nga ëmb ko indi ko noo waajale xale bi. waaw parce que yu mel noonu mooy li may wax rek toujours bu jot buñ santee yàlla julli si yonent bi di leen sant aussi yéen kenn amul seen fay yàlla na leen yàlla fay mais xale yi boo gisee loolu di manqué si ñoom mooy promoteur yu leen di dëkk mu bari wut si dëkk bi pour am na production mais promoteur yu yor xaliss bu len di deug ak sponsor bari wul mbuur loolu rek lañuy joy amul leneen mais mbour mbeur man na joge Dakar sax ñow beure ci mbour wa ah, mais nak promoteur yi fi nek wax deug yalla amuñu kàttan am nañ compréhension bo motax bu ñuy négocier combat tamit dañ ci baye xel ci loolu quoi a ah. léegi tey Pakala Casamance gis ci ko tay ya ko indi ci lamb ci tay noko wajale wa parce que comme ni ñuy wajale ay am rek parce que mbeur mom xam nga lu mu waj man bopp mbeur mu ma yor lo waj xeeb ko lu ma la waajal xeeb naa ko si wàllu wépp nag li ma lay njëkk a jiital si làmb nag mooy indil yar ak teggin yar ak teggin mooy maye lépp lu mu la xañ lu mu la mayul du la ko xañ toujours bu may préparé ak ñoom loolu laa préparé ak ñoom xaw na gëj si géew nag xaw na gëj am combat mais loolu yëpp am nañ si yaakaar ne tey jii bu at bi suuflee xañ na si liñ si liggéey yëpp xaj na yaakaar naa bu siy du doon à 100 pour cent quoi. mais xale bi muy bëree yaakaar yaa koy suivre ci mbapat mu nekk sell bu ndaw nekk xale boo xam mu ngi compétir mu ngi mbapat mu ngi def ay parcours mu jël xale bu mel ni Pakala Casamance tey boo koy invité loo loo xale boobu. waaw parce que ay mbërëm lañ comme ay moromam lañ nag Pakala tam mu ngi bëre mu ngi compétir ay mbëru mbapat si si équipe bi comme tey ji luñ ko mën a wax rek mooy fexe nuñ étudier adversaire bi fexe nuñ ko juumloowe pour daan ko loolu kese la amul leneen mais adversaire la am comme adversaire yeneen yi dañ koy fexe étudier nag pour daan ko lool kese la waaw mais tey noo gisee Maniang ak innovation bi mu indil xale yi ndax saa yu ñëwee décroché ay xale yoo xamante ni nii dañuy nekk ci benn niveau bi mais Maniang saa yu ñëwee indi benn solo noo gisee tey bis waaw Maniang da sama waay du may mën a wax si moom boo seet loolu laa mu Maniang si laay gën dund bañ nekkee xale ba tey la ko xamanteni sama nitu bop la mais amna lo xamanteni ñun force autorité mouri ak porteur de voix yi ñu jàpp ci parce que xam nga ni li yeb ku ko dajale ci bu yàggu war nga mëna am espace bo xamanteni fa ngay tëggee lam espace espace bi rek buñ defaroon turbine yi mu wër ba wacc nak turbine xeer day mëna jël nit ñu bëri ci da nañ ci dëgg lam man seetaan na fi lam bima nekké boy ba tay mais nañ ko innover mu gëna rafet mbuur tollootul fu muy tagasi ay lamb jot ñuy gas ay terrain di dem ay terrain dañoo war a am stadium boo xam spécial foofu la ñuy bëree saa yu ko nammee dem fa mooy dimbali sax promoteur yi mais promoteur yu bëri ragal nañoo tëgg lamb di perte parce que lamb baas xam nga ni du lamb du lamb yii buñ ko arène Adrien Senghor fii mat na ko ñett dañ koo innové defar ko ay nit di fa bëre ji nañ ko defar fii buñ ko defaroon normal ni mu man ni mu war a mel arène mën a am mbapat dafiy mën a am wallaay Jordan daa tekki ngeem wala lu xew. tànn leen ñetti booy yi gën a aay ngeen jox ma leen ma zibilee ko. daa ba doon loolu nga may wax. maa ngi wax ko ba tey benn booy ñu. nee naa la yan booy nga soxla. du ma sitile kenn. maa koy. vidéo bi tànnal ñetti booy yi gën a baax. yi ngeen ëpp yaakaar ngeen jox ma leen. maa wut combat boobu wutal combat yi ngeen tëgg ko. jaajëf ma ma raxasoo leen. jaajëf jaajëf. jël jël yëpp ñoom la loolu yëpp ñoom la waa gaa nga gis loolu borom dëkk bi moo xew la yaa mbir mi doomu mbuur bi yaay borom dëkk bi maa borom dëkk bi yaay sama fi mais am naa loo xam ne ñu fi dëkk amuñu ko mais maa ko liggéey waaw mais lii lan la. mbooloo bi rek kaay ñële ñu ngi ne mbooloo bi lii yëpp. moom Pakala Casamance boo ko xoolee tey bés bi ndeysaan nekk na bés boo xamante ni bés spécial la ci moom mu nekk journée boo xamante ni nii Maniang moo ko indi tey mais boo xoolee tey da xam ni xale bi daa décidé tey ndeysaan le grand champion mais mais lii lan la. lii yëpp maa ko liggéey xale yi dañ maa bëgg julli ajuma wàccee kaamil ngir te dëkkuma si dëkk bi mais nag yàlla baax na. yàlla may sutura lu bu bëri daan di ne nii damaa liggéey ba dee soxla ma poids damay teg sama bopp lu métti te gisuma entraîneur gisuma coach gisuma dara di liggéey lu métti man kenn kii maay diriger parce que yonent bi soo bëggee nga xool arbitre bu nepp ma diriger su ma neexee ma taxaw. mais xale bi ngay bëril daa efficace parce que nekk na champion boo xamante ni est-ce que dox ci koom wóor na. kii yéemewul. jongle la man te ngembali mu su loxo mu sandi ko arbi bu neppi maa ko dàq bëre mbuur laa dëkk du jóge xabaan fekk ma fi bugg maa daan mënul ne ta tefes bi laa jàngee bëre ta si lébu yi laa jàngee bëre kon bientôt léegi mu leer jaajëf maa koy diriger si deux minutes wala si une minute ma baraake ko nga daan ko day compétir compétir wu ma 2019 laa gëj a bëre mais xeexal ko dinaa ko bëre loo ba mu bàyyi bi nee daa mën a xeex kii mënul xeex nee soo xeexee kii bu mënu maa wàcce. soo bëree mu daan la. kii yemewul. ceeb ba ngemb lu tooy na. mbabat fu mu am du ko gis. jaajëf wàcce naa fépp mbabat yi fépp ngemb lu tooy na xoolal foo fu mu teg gis ma. jaajëf maa ko wax jaajëf.